dalen ak jamm mbokku internet chaîne football TV nuyu naa leen bu baax jeex len di am bekté sa su ne defal leen vidéo remercier len bu baax gis na euh, message euh, si 200000 abonnés yi gars ñu ngi may ñaanal sa ay 1 million ma ne gars yi fofu quand même xam donc mais merci beaucoup gis na euh, gis na ak si poste bi euh remercier nak gars yi di jënd ay blouson ballon xam donc maillot parce que lool ngeen ma mëna a su manam nag li leen koy wax bari na mais c'est très important ci liggéey bi donc lepp lu xamanteni bëgg nañ ko aussi tamit loolu day tax mu jàppale ñu jënd ballon yi xam original dina maillot jënd casquette xam donc jënd blouson au 77 352 31 01 donc merci si ñi koy def di fi ci réew mi ak bitim réew mbokk yi aussi mu wax leen rek bu leen fàtte dem suñu TikTok dooleel ñu comme que dañu amoon 107 000 abonnés si biir semaine bi euh, ñu ñàkk ko donc ñu nangu ko nag donc euh, ñu ñu leen di ñaan ngeen dem boo leen duggee TikTok.

fu ñu jaay à chaque fois interview day wax Lampard franchement confiance bi mu ko jox et que relation bu nice la ñu am donc man jàppoon naa ne ak euh, boo xoolee revers yu Chelsea yëpp. Kepa moo góol donc waroon nañu mën a war indi Edouard Mendy et donc Edouard Mendy bokk ci meilleur gardien du monde avant que nag kii di ñëw euh, Lampard waxtaan dañoo waxtaanoon maanaam dirigeant yu Chelsea ak entourage bu bu bu kii di ak agent bu bu bu Edouard Mendy waxtaanoon dañoo waxtaanoon pour 6 ans de contrat il s'est trouvé que ne Edouard Mendy refusé et presse bi li mu waxoon xamale woon si jamono boobu Edouard Mendy dafa bëgg le même salaire que Kepa te Kepa dafa bokk si gardien yi ëpp salaire ci monde si cinq gardiens yi ëpp salaire quoi. maintenant Kepa, il faut savoir que aussi bi mu jógee de Madrid de Bilbao autant pour moi dañ ko jëndee woon somme bu takku donc waa va nous vendre comme quoi euh, il va être le futur meilleur gardien du monde xam ba instant yi ñuy wax ak duñ ne pas xamul dara mais quand même nekkagul à ce niveau là maanaam ñu All Black à un moment donné fi mu nekk wala Courtois donc euh, wala ba si Edouard euh, euh, Mendy mi donc Edouard Mendy à un moment donné on peut dire que Europe teg na fa tànk ba ñu boole ko si meilleur gardien du monde yi ba bi ñu jël trophée di ko jox Donnarumma ñu bëri dañu ko doon kaasal ci àddina donc pour dire que Edouard Mendy am na lu mu prouver jël Ligue des champions def ay clean sheet yu dul jeex donc entre temps lu bari xewna na fi nek na fi méfor mu na fi et tout donc euh, jël na fi un peu de poids faut le dire quand même parce que man mi dem entraînement des Lions et do amee bima gissone avant ak bima giss ni il y a une différence différence là euh, en, en matière de poids on sait boo bëggee nekk gardien de il faut que nga nga il faut que nga agile xam nga donc am benn silhouette benn bi lay permettre nga def yenn arrêt yi. du nag jamono bi lenn moo fi nekk donc euh, semaine bi waxtaan nañu maanaam euh, dirigeant yu Chelsea waxtaan nañu waat ak euh, entourage bu Edouard Mendy et c'est trouvé que jubóowuñu loolu taskatu xibaar yu nekk foofu ci Angleterre ñoo ko xamale maintenant choix yi moo fi nekk yu xamante ne presse bi xamale woon nañ ko benn. mu dem Inter de Milan parce que Wa in wa Chelsea et que Inter aussi am échange parce que nga perdre un très bon gardien muy nga gardien difficile les a échange entre Edouard Mendy donc day arranger tout le monde tout le monde est gagné dans l'affaire dem Chelsea avoir un très bon salaire parce qu'on sait que actionnaire bi fa et que qui di Edouard Mendy aussi dina dem un championnat compétitif équipe bu xamante demi-finale actuellement actuellement euh, Ligue des champions donc euh, équipe bu xamante ne ay at signant aussi tamit jël championnat donc day nekk lu intéressant donc le choix bi fi c'est la Juve Juventus Juventus ba tey niveau bi ñu koy xaar yéegu fa parce de ñu du côté de Arsenal euh, man men sax niveau bi mu ko doon xaar réellement par exemple boo waree remplacer Buffon tu dois élever le niveau maanaam boo par exemple Ben Maguette du côté de Milan Donnarumma dem na mais daf élever

donc loolu ça peut faire que mën dem Tottenham mais mon seul problème avec Tottenham c'est que pour man benn Juventus nga jël fa trophée wala ben Inter mo gëna gaaw Tottenham boo xoolee Harry Kane ay at ni mo ngi fa ba tey jël trophée donc c'est un club bu xamante ne am nañu stade bu rafet donc dinañ bokk nañ ci top quatre wala meilleure équipe bi Angleterre donc même si cette saison c'est hyper compliqué mais pour dire le trophée c'est difficile et que Edouard Mendy âge bi mu am ne donte soxla un très bon salaire c'est c'est vrai mais euh, bon mënee am les deux jëlal donc boo mënee aussi découvrir un autre championnat donc pour moi, par poids bi mu am nii Edouard Mendy bu demee Juventus mën nañu ko defar bu demee Inter mën nañu ko defar gis nga Mandanda bi mu amee problème à un moment de Marseille dafa dem Italie gars yi defar ko. je pense que ñi yàgg seen football xam nga ne Italie dafa am benn dëkk bu xam ne spécial da ngeen ne foofu ñu defar la et même sans dara boo xoolee ñoom seen seen kii physique moo gën a métti quoi. seen seen hivernal boo xoolee Mamadou Niang à un moment donné bi mu nee Bastia jël fi poids noonu après dafa dem Italie. waaye itam ñoo ko mu am benn silhouette mën a ñëw Strasbourg toj ko xam nga donc Marseille toj ko et tout xam nga donc loolu c'est hyper intéressant boo xoolee am na Gignac à un moment donné amoon na problème boobu mais moom Tanzanie la dem mais Edouard Mendy par rapport silhouette bi bu retrouver le niveau championnat italien mën na ko garantir loolu en termes de physique dinañ ko dina apprendre une autre culture parce que ni ñuy tàggatee gardien France ni ñuy tàggatee Angleterre ak ni ñuy tàggatee Italie c'est pas pareil je pense que France beaucoup na si ñuy daax a gardien parce que l'olution moo nekkoon que

donc mën intéressant pour sa carrière non seulement pour découvrir autre chose mais aussi pour gagner des trophées. donc man lii laa gis euh, concernant Edouard Mendy lii laa am lu ma si xalaat yéen ci commentaire wax leen ma noo leen gisee le cas Edouard Mendy ma jay jëfal leen nak bu baax a baax wax leen ba benen sur Football TV